mbokk internet yi Sénégal 5 TV ñu ngi leen di nuyu di dellu siwaat ak yéen ci seen actualité bés bi tey nag dañ koy tàmbalee ak ki nga xamante ni Mamadou Lamine Diallo muy député foofa ca assemblée nationale moom nag dafa indi ay leeral yoo nga xamante ne yu am solo la ci euh, les chiffres budgétaires yi nga xamante ni président de la république euh, génne woon na ko muy xam nag ne ci 2022 bi daal Sénégal dina am budget bu toll ni 5000 euh, milliards yoo nga xamante ne nii Sénégal mën na ko am ci budget moom nag député bi indi na ay leeral bu baax. xam ne daal li nga xamante ni moom la président wax daal chiffre yoo xamante ni la yu nu bricolé la du chiffre yoo xamante ni leeral nañ ko askan wi ak fu mu jógee ak li nga xamante ni moo tax ñu war euh, bu moom député euh, de finances rectificative bi nga xamante ne ni moom mooy bu 2021 muy euh, leeral rek ni bi ni ñu nekk recette interne yi nga xamante ne ni état bi am na ko ci biir réew mi mu ngi toll ci 2742,5 cinq milliards waaye nag ci deux mille vingt bi ñu ngi amoon ci deux mille huit cent vingt ci bi mu nekk nag loo xamante ne nii li diggante deux mille vingt ak deux mille dafa doon loo xamante ni nii lu wàññeeku la mooy recette yi nga xamante ni ñu ngi ko am ci biir réew mi dafa wàññeeku bu baax dafa wàññeeku diggante deux mille vingt ak deux mille vingt et un Sénégal mën na ko am ci bitim réew mu ngi tolloon ci waaye deux mille vingt tamit dafa tolloon ci euh, mille trois cent neuf virgule dix sept milliards mu nekk loo xamante ni aussi bor yooyu dafa yokk bor yooyu ñuy xam ne daal mën naa yokk ci deux mille vingt et un bi ni daal moom mooy expliquer euh, cinq mille milliards yooyu nga xamante ni ñu ngi koy am maanaam daal euh, bu ñu sukkandikoo si euh, député bi li mu wax mooy recettes yi nga xamante ne nii moom la ñu war a am ci biir réew mi day doon lu nga xamante ni day wàññeeku waaye bor yi nga xamante ne nii war nañ koo lebi ji si biti mooy yokk moo koy gonfler ba ñu mën a am cinq mille milliards yooyu loolu nag day sukkandiku rek day day fësal rek ni Sénégal moom réew moo nga xamante ni la maanaam ay bor kese la réew Sénégal ñuy faral di dégg ay milliards ci réew mi ay nangaw milliards ñu koy tudd ci réew mi ci politiciens yi di ko tudd doonul loo xamante ni daal lu ñu liggéey la waaye ay bor yoo xamante ni moom la ñu euh, président di jëli foofa ca bitim réew di ko indi mu nekk loo nga xamante ni contribuable bi ñoo koy fay ci réew mi nga xamante nii chômage bi mu ngi euh, sonal euh, jeunes yi bu baax pauvreté bi aussi mu ngi sonal bu baax a baax baax ñi nga xamante ni ñoo fi dëkkee muy phénomène bu nga xamante ni bu doy waar buñ jugee foofu dañuy dem ci ki nga xamante ni rek mooy docteur Moussa Diop moom nag ci jamono yi ci opposition bi lay wax ne daal Sénégal fi mu toll nii opposition boo xamante ni daal dafa tekkaaral te seen combat yi ñuy amal daal dara leeru ci leeral lu ñu askan wi daal fi ñu taxawee moom mi nga xamante ni nag mooy leader force démocratique du Sénégal moom nag jàpp na daal euh, opposition bi fi mu toll nii daal amuñu benn benn benn benn euh, safara comme niñ koy waxee maanaam yënguwuñu dañoo déggaaral lool lool lool waaye nag gannaaw si loolu moom jàpp na daal am na ay benn benn yoo xamante ni ci opposition bi ñu ngi yëngu waaye daal li ñu war def jamono yi mooy jug daa xeex ci euh, population bi bu ñu ko soxla waaye tamit ñu daa dee euh, mànkoo rek xeex li nga xamante ne nii moom moo di troisième mandat président Macky Sall bi ngir mu bañ ko amal. jugee foofu dañuy dem ci modification du code électoral bi nga xamante ne nii président de la république moo ngi koy euh, jébbal ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy député yi foofu ci assemblée nationale ci alxames ji ngir ñu mën koo voté ci session extraordinaire ndax ku ne xam na ni assemblée député tëjoon nañ waaye projet de loi bi nga xamante xamante ne nii moom moo soxal modification di code électoral moo leen di indiwaat ci alxames ji bu soobee yàlla waaye nag dañoo seetlu ni daal projet de loi boobu euh, député yi jotaguñ si gannaaw suba suba la ñu koy voté ci assemblée nationale waaye ñoom député yi jotaguñ si projet de loi boobu ba mun ko analyser ba war ko mën a voté wala ñu bañ koo voté waaye daal li wër te wër mooy àllarba ji ñu nekk suba di alxames boobu ba tey ñoom jotaguñu li nga xamante ne nii moom moo di euh, proposition de loi boobu président de la république def xamante nag lu doy waar la clairvoyance ak li nga xamante nii moom moo di leeral mbir mi rek dimbaliwul euh, ñi nga xamante ni moom mooy euh, député yi ngir ñu mën ko voté euh, ci lu nga xamante nii daal day leer seen bopp ki nga xamante bu ñu jógee foofu dañuy dem ci wàllu pétrole gi ki nga xamante ni nag moom moo di Far Limited bi yoroon wàllum exploitation yi pétrole gi foofa ci côtu Sénégal ak Gambie bi ñu ko doon wooye Sangomar moom nag dafa jaay wàllam ki nga xamante ni mooy opérateur bi ñu tuddee Woodside Petroleum moo war a exploiter yëf yi mu nekk nag euh, géewu pétrole gi jamono yi yëngu bu baax a baax euh, ofri di ñëw ñuy jaay ak di jënd ay parti mu doon lu nga xamante ni aussi dañuy ñaar rek Sénégal daal di si gañe bu ñu jógee foofu dañuy dellu si politique ak ki nga xamante ne ni moom moo di Barthélemy Diaz ak li nga xamante ne ni moom lay def di euh, tukkim nemmeeku doon amaloon ko foofu ca Médina foofa ca village artisanal bu Soumbédioune ki nga xamante ni nag moom moo di maire Mermoz Sacré-Cœur demoon na seeti artisanat paysans yi nga xamante ne ni ñoom ñoo nekk foofu ci eh, ñu fa nekkee ak ay jafe yoo xamante ne ni am nañ ko fa ngir ñoom rek bu ñu jugee si local yi mën koo faj waaye li ñu gën a nemmeeku foofu rek mooy ki nga xamante ne ni moom moo di Barthélémy Dias demul seeti ki nga xamante ne ni moom mooy eh, Bamba Fall di maire Médina bokk ci ki nga xamante ne aussi moom moo nekk mooy xalifa Sall waaye dafa choisir daa dee eh, bañ a seeti ki nga xamante ni moo di Bamba Fall dem seeti benn collectif bi nga xamante ne ni mooy collectif de jeunes de la Médina ku ne xam na ni collectif boobu jubawuñ benn benn yoon ak Bamba Fall chaque jour ñu ngi xiiroo ak ŋaayoo mu den lu nga xamante ni nag euh, waa Sénégal def nañ ci benn jàngat ne est-ce que du maire Mermoz Sacré-Cœur ak ki nga xamante ni mooy mair bu Médina di Bamba Fall dañoo jaarootul taal nekk ay question yu nga xamante ni daal ñu ngi koy posé jamono yi ci langue politique gi bu ñu jugee foofu dañuy dem foofa ca université Cheikh Anta Diop sanction yi daanu na ci euh, yàqate googu nga xamante ni amoon na ko ci weer wala étudiants yi doon ko amal ba euh, ki nga xamante ni moo di Maguette ñëpp ne dinañ ko leeral ba euh, ñi ci takk ñëpp ñu daal di leen di sanctionné sanction ya nag euh, daanu na foofa ca université Cheikh Anta bu ñu sukkandikoo ci euh, si yéenekaay yi nga xamante ne nii moom moo daal génn tey étudiant bi nga xamante nii moo nekkoon licence de foofu ta fac de fac science juridique et politique moom nag dañ ko dàq ca université Cheikh Anta cinq ans yoo xamante ne nii dootu ko jàng foofa ca université muy Pape Abdoulaye Touré moom nag moom jàpp na ni daal moom taxewu si laalewu si te loolu ñu ko loolu ñu ko def daal dañ ko ko tuumaal rek waaye nag am na yeneen moroomam yoo ni euh, teg nañ leen aussi ay sanction yoo nga xam ne muy ay ñaari at yoo xamante ni dootuñu ko jàng mais am na ñeen ñoo ni aussi juróomi at lañ leen euh, sanctionné ne dootuñ ko jàng foofa ca université mu nekk nag som bu takkoo takkoo takku dinañ si ñëwaat ci sunu yeneen i euh, jotaay mu doon lu nga xamante ni sanction yu méttee métti la foofu ca université Cheikh anto Diop ñu bëri di ko ñaawlu waaye am na ñoo xam ne dañuy wéy rek di wax ni loolu daal luy doon yoon la ndax euh, université dafa nekk foo xamante ni nii daal euh, yooyu noonu warul fa di am waaye nag ki nga xamante ni moo di recteur bi joxar nañ ko baaraamu tuuma daal jàpp nañ daal lépp li mu def ni yëpp du yoon te politique rek moo ko lal waaye nag dañuy xool fu waane di mujjee ki gëtam ba xam fan yi di ñëw lépp dina leer bu soobee yàlla bu ñu jógee foofu dañuy dem ci sport euh, élection fédération sénégalaise de football ki nga xamante ni nag moo di président xawaat na ndëndëm foofa ca fédération ba gannaaw bi nag mooy doon quatrième mandat bi nga xamante ni moo koy amal foofu bu ñu euh, sukkandikoo si sunu naataangooy IGFM yi waaye nag du moom kese jamono ji am na li nga xamante ne ni moom moo di ay adversaire de taille ku si mel ni Madi bu bu nga xamante ne ni moom moo nekk foofa ca génération foot moom aussi candidat la waaye aussi mbay Diouf ja mi nga xamante ne ni moom moo jiite Mbour Petite Côte aussi euh, candidat la ci ci mbirum ki Sall rek la ñuy daal ndax euh, ki nga xamante ni moo di Moundiaye Cissé euh, Karim Wade ak Khalifa Sall ngir ñu mën a bokk ci euh, élection yi nga xamante ne nii ñoom ñooy ñëw nii ndax ki nga xamante ne daal mooy président bientôt maanaam léegi rek dootul doonati njiitu réew te dafa war a taxaw tëddee njaaxaanaay ngir ñi nga xamante ne nii daal ñoom ñoo nekk ci biir réew mi ñëpp ak génération future bi mën a bokk ci candi candidature yi nga xamante ni moom lañuy amal ndax buñ sukkandikoo ci article L31 ak L32 code électoral électorale bi boo defee kaso dootoo mën a def li nga xamante ne nii moom moo di samp sëndën ci élection yi di yi nga xamante ne nii moom mooy am fii ci senegal mooy lu nga xamante ni daal bu ñu sukkandikoo si Moundiaye Cissé président daal war na leen setal ba ñu set ngir ñu mën a bokk ci euh, élection yi nga xamante ne nii ñoom ñooy ñëw mbokki internet yi lii lañ leen indi loon tey ci actualité wu bés bi di leen jox dig daje ba suba bu soobee yàlla